maam maam maam maam maam maam Adama Gueye. waaw maam Cheikh Adama Gueye moom moo njëkk. maam Cheikh Adama Gueye mu mag ma. waaw moom moo njëkk Serigne Touba. waaw léegi maam si ma Gueye jamono ak doomam la. maam Cheikh ma Gueye jama mii. waaw doomu Adama Gueye la. waaw hmm. léegi moom moo nekk fii. waaw ak waa këram. waaw ok waaw. waaye kii nag ab taawam Serigne Modou Gueye la tudd. Serigne Modou Gueye mu nga fële ca Baaxee. Ah, bàq yi ah, kon daa ñëw ci ginnaaw bi ñu tëjee armée bi waaw dafa làqu gannaaw bi ñu tëjee armée bi moo tax ñu yóbbu ko bàq yi waaye suñ mu sëñ Modou Gueye jamo mii nekkoon na ci sëñ Tuubaa eh, eh, bu dee maam Cheikh Adama la moom ci ñi mag ñi toppoon Serigne Touba ci la bokk waaye wàññi ko eh, maanaam tukki bi hmm. firoog ko sëriñ bi mu ñëw ko fee fépp. waaw waaw moo tax boo taxu koo siiw taxu koo bëri mbooloo na de na lool maam Adama. doo maanaam doo leen bëri ndax fekku fi fekkati fi bi bi sëriñ bi ñibbisee. waaw waaw waaw xam nga ñi ci bëri bi sëriñ bi ñibbisee. waaw la leen seexal. waaw dolli leen euh, maanaam ñu am doole ji ñu am. waaw waaw dëgg la may dégg. dëgg la waaw dëgg la maanaam seex su bëri bi sëriñ bi ñibbisee ci euh, tukki bi. waaw waaw lañ gën a am doole ndax ci la leen woo seexal leen. waaw kenn ku nekk mu beral la dëkk. yóbbu dugg na barab sàngam. Mhm, mhm, mhm. moo tax ñooñu am doole. waaw moom mii nag. Mm. gannaaw ci tukki bi noonu gannaaw tukki bi la làqu jamono. te njaboot gi mu fi bàyyi woon jamono yooyu it. Mm. ay tuuti tànk yu ndaw lañ. Mm. lool moo tax maanaam doolem toog koo baree noonu. kii ci la bokk nii kii nii ah. kii nii jamono yooyu moom moo nekkoon temps waaye boobu ak tuuti tànk la. moom ku toll ci am jàng ak yooyu bokkut ak koo xam ne dafa jàng ba noppi. ñor koo seexal loolu mooy di différence bi ak ñi fi ñi ñi fi bàyyi. waaw waaw waaw waaw. léegi nag moom moom mii sëriñ Mouride Gueye mooy ab taawam. Mm-hmm. man ci moom laa doon moritu moo tax ma xam famille. macha allah macha allah. foofu daa ne kon ba may xale xam naa war naa fa am mat ay fukki at ak lu ko topp. ci sëñ Modou Gueye fukki at juróom waaw. ñoom fu ñu féete woon fu ñu féete woon dëgg dëgg dëgg. ñoom seen dëkk euh, Darou Gueye. waaw Darou Gueye maanaam moom la Serigne bi sancoon. Mm-hmm. Darou Gueye ma ca booru Dabel. boo rombee booy dem ci Mbàkke gi. waaw croisement Kayel. waaw Touba Kayel. waaw moom ko xam yoonu. moo ne ñëpp dégg nañ ko waaw waaw. Touba googee nag moo dee nag Daaru Gueye. Hmm. waaye Serigne Mourou Gueye mii moom. waaw Serigne Mourou Gueye man mi ma doon mortu. waaw moom dëkk bu tudd Wulkuñ Gueye. waaw Wulkuñ Gueye googu it. maanaam doomi sëñ Abdou maanaam taw Cheikh Maguette. waaw moom moo fa nekkoon. Hmm. moo fa nekkoon boo fa jegee doom ju tudd Serigne Bassirou Guèye moo fa nekkoon. macha allah macha allah kon daal kenn ci magi Serigne Touba yaa ngi nii. waaw doon doomi Serigne Adama Guèye mi ñëpp di dégg. mi njëkk a jébbal Serigne Touba saayir. waaw kon nag moom loolu taarix mënu koo weesu sëñ bi. waaw maanaam siiwte. ak ndam ak daraja mënu koo wees wees. te dégg naa tamit sëñ bi moo joxe loon bopp ay ndigal ci ñu taxaw foofu sëñ Adama Guèye. ca ca ca ca ca foofu noonu Mbacke Kajoor waaw fa lañ ko denc dem naa ba ca bërëbam waaw xool ko maanaam nemmee ko mbokki taalibe yi di ko bëggee loolu nag waaw bi xam naa boo mënoon nuyonteeg mbokki taalibe yi tuuti rek wax ñoom ci yow yaay kan ak bërëb bii waaw man maa ngi tudd Birane Ndiaye mhm. di taalibe bu yaroo kër sëriñ Mouride Gueye laa yaroo mhm. bi may xale ba léegi mhm. ba ni ma ñaanalee ba ñu mu làqoo jamono ñu denc ko fële ca bàqee mhm. yàgg naa fa nag ci daara ji mu nekkoon mhm. moom mi ngi nekkoon Touba Dëru Guèye mhm. ñu naan ko wurkuñ Guèye foofu la nekkoon waaye ma nga fa nekkaloo nag ay magam magam ju tuddoon sëñ Abdou Samad Guèye kooku làqu na mu bàyyi fa doomam rakkam ju tudd sëñ Basirou Guèye Serigne Basirou moom amaat doomam ju tuddaat Serigne Abdou ñooñu la nekkoon ñoo nekkoon ay doomi baayam sëñ Abdou moom mi ndaw mi doomam la woon mm-hmm. moo dëkk fii ci Daaru Minam boo rombee jumaa ji tuuti rek mm-hmm. foofu la sëñ Abdou Samad dëkk waaye sëñ Mourou Guèye mi may wax mm-hmm. ma nga dëkk fële te trente ba Daaru Minam te wetu ko sëñ Moustapha Abdoulaye foofu la dëkk kon mbokki taalibe bi gis ngeen ko ñu ngi fii. doomam ji mu fi bàyyi mi ngi tudd sëñ Abdou Guèye mm, moo fi nekk fi nekk waaw moo fi nekk mooy mooy xalifaam fi yàlla na fi gën a. waaye xalifa maam Adama rek. waaw mi ngi tudd mm, uh, Serigne uh, Cheikh Fall. Serigne Cheikh Fall moom mi ngi nekk fan. moom it mu ngi nekk Daaru Minam googu noonu. Mm, Daaru Minam ñoom ñu ngi Daaru Minam. macha allah sori bu ñoom ñaar. kon sëñ bi ñu ngi lay sant baa ndax lii dafa jëm ci liggéey boo xamante ni mbokk taalibe bi ñoo koy def ngir ñu àndoon ak Sëriñ Tuubaa te fexe ba so yoon wi nekk fi maanaam ñu leen di fàttaliku comme ni yonent bi saasam waxee ni maam Sëriñ Tuubaa wax na ni képp kuy taggu yonent bi saasam te boole woo ci ay saabaam sa woy mën na ni matul loolu nag daal dal Sëriñ Tuubaa sëñ Caana moom léppam mat na ci moom jëmi boppam waaye nag bëgg na ku koy tudd di ko magam yi nga xamante ni moom la àndaloon taxawal yoon wi ba yoon wi yegg si fii mu yegg kon nag sëñ Adama Gueye buñ ko tuddee ñëpp xam nañ tudd nañ cosaan yoonu murit waaw loolu daal mooy liggéey bi sëñ moo liggéey mi li ma ci dolli mhm. këri boppam yi mu am ma nga fële ca Touba Njaareem mhm. foofa la am mook ay taalibeem mhm. ak ay doomam bokkoo Serigne Saliou joxe dafa woo taalibe yëpp kenn ku nekk mu